vous avez droit à trois réponses simples. Est-ce que Idriss Sasek sera candidat à l'élection présidentielle de 2024 est-ce que réponse bi mën naa nekk question ni ma ko sant dama koy def question soog laa tontu lu simple est-ce yow mi laaj question bi mën ngaa xalaat élection présidentielle nekk Sénégal egsi Idrissa Seck di dundu dese bakkan am wér ak cawarte te du ca xalaat nga loolu wala xalaatoo ah xalaatoo ko de est-ce que xam nga kenn ku mën a xalaat loolu kenn rek ku ko mën a xalaat waaw léegi nag réponse bi gën a gàtt mooy waaw ñaareel ñaareel deuxième question deuxième question ndax Macky Sall am na droit xam nga lu tax société am société li tax mu mën a am mooy dañuy am kuréel goo xam ni lu mu dogal nga ànd caag nga bañ caa ànd da nga cay tënku bis bu ne nga dem États-Unis cour suprême ba génn décision boo xam ne ñu bari dañ naan lii ay balla poy de la ay ay yu ñàkk yu amul benn teguwaay la wante doo gis benn américain bu ca dul tënku benn kurél mooy wax ku sañu la bokk mooy conseil constitutionnel mais li boroom xam-xam yi wax te muy ay boroom xam-xam yoo xam ni seen xam-xam du xam-xamu caaxaan ku mel ni professeur Serigne Diop lu mu la wax ci constitution takkal téere fii ba Koulikoro fii ba Casablanca fii ba Johannesburg ku fi jàngale droit constitutionnel laaj nga ko bis nga gàgg mu gàgganti la sëriñ Diop nee wala boog Serigne Diop nee amul droit te amul benn porox ndool bu mu jaar pour am droit wax na ma ko loolu leer simple troisième question nga ne bilan bi bilan bi xam nga fii laa toog ma ne leen euh, man maa waxoon ni la vision de Macky Sall dépasse pas Diamniadio waaw léegi bu ma rombee Diamniadio romb Fatick romb Kaolack traversé pont wu Gambie te daanuwuma ci ndox mi vision bi dépassé na Diamniadio la du question tag c'est la vérité et bientôt je pourrais faire la même chose vers le nord traverser Rosso te duma fa fanaan samay légumes di nëb wala samay màngo yi jóge Casamance di nëb loolu bilan la mais bilan bi li ma ci gën a neex mooy ndox mi ndox mi ak piste dafa am ay chasseurs libanais yoo xam ni rëbb rek mooy seen métier matase ak ñoom réserve animalière de Bandia ñuy waxtaan xamuñu man maay kan ñu ne ñoom yàgg nañoo rëbb ci àll bi mais ren bi ñuy rëbb li ñu fi gis ci ay forage ak ay tëli ak ay piste ak ay espace aménagé musuñu ko gis ci Sénégal électrification li ñu ci gis musuñu ko gis bi fi Wàdd nekkee électricité bi Senelec xuy kamaj lañ ko tudde woon parce que man maa ko tudde woon bon mais léegi on a quand même assez de mégawatts donc le bilan il est excellent du point de vue matériel du point de vue immatériel il peut être amélioré sur l'indépendance de la justice, sur la transparence des rapports de certains corps de contrôle, sur l'implication de la famille dans la gestion des affaires de l'État. Voilà. Mais globalement, c'est un excellent bilan. Mais je peux faire mieux.

Merci.